benn korent ñett man nag mbokk yi mënu a wax ak yéen ni ay nit ñuy déggali xelum yàlla waaye waroon naa wax ak yéen ni ñuy topp seen nafsu mel ni ay liir ci seen dund ci kirist nàmpaloon naa leen waaye joxuma leen dugub ndaxte àttanu leen ko woon te ba léegi sax àttanu leen ko ci li ngeen di topp seen nafsu bu ñeetaan ak xuloo amee ci seen biir xanaa du loolu mooy wone ne dangeen a topp seen nafsu di doxale ni niti àddina bu kenn yëglee ne man ci pol laa bokk keneen ne man ci apolo ndax jëfewuleen ni niti àddina rekk kuy apolos ak kuy nun ay surga rekk lañu yu ngeen jaare bëggam te boroom bi moo sas ku nekk liggéeyam maa jëmbat apolo suuxat waaye yàlla moo jibil ki jëmbat nag ak ki suuxat kenn du ci dara waaye yàlla mi jibil rekk moo am solo ki jëmbët ak ki suuxat benn lañu teewul nag ku nekk dina jot yool bu tollook liggéeyam nu ngi liggéeyandoo ci liggéeyu yàlla yéenay toolu yàlla yéenay taaxum yàlla man nag teg naa fondement bi ni tabaxkat bu man liggéeyam dëppoo ak sas wi ma yàlla jagleel ci kaw yiwam te keneen a ngi tabax ci kaw waaye na ku nekk teelu ci ni muy tabaxe ci lu jëm ci fondement bi kenn mënu fee tëral beneen bu dul bi fi xasa taxaw mu yéesu Kirist ku tabax ci kaw fondement bi wurus xaalis per dénk gi walla bopp sa liggéey dina fés ndaxte bés baa koy xamle bés boobu dina fenk ni safara te safara si dina nattu liggéeyu ku nekk ku sa liggéey dëgër dinga jot yool waaye ku sa liggéey lakk dinga ñàkk yow ci sa bopp dinga mucc waaye mel ni ku rëcc ci safara si xanaa xamuleen ne yéene kër yàlla te xelum yàlla dëkk na ci yéen ku yàq kër yàlla gi yàlla dina la yàq ndaxte kër yàlla gi dafa sell te yéeney kër googu kon bu kenn nax boppam su kenn ci yéen tege boppam boroom xam-xam ci gis-gisu àddina si kooku na doon dof ngir am xam-xam bu wóor ndaxte xam-xamu àddina si ndof la fa yàlla moom la mbind mi ne yàlla jàpp na ñu muus ñi ba seen fiir këpp ci seen kaw boroom bi xam na xalaati boroom xam-xam yi xam ne duñu mujj fenn kon nag bu kenn tiitaru ndax nit ñi ndaxte yéen a moom lépp muy pool di apolos di sefaas di àddina di dund di dee di lu am di luy ñëw lépp yéen a ko moom te yéen kirist leen moom te kirist yàllaa ko moom